bisimila ñi sant Wade Mbaye Cissé Mballo lépp loo xamante ni bëggoon ngeen ko ci réew mi tàmbale leen dakk sa ndax président Macky Sall na li nga xam ne moom mooy dund gi Sud Quotidien ne Macky casse tous les prix baisse des prix de denrées de premier nécessité ak li nga xam ne moom mooy location bi déglu leen ma wax leen li Macky Sall wàññi kilogramme ceeb bi nga xamante ni cent pour cent indien la jóge na tout trois cent cinquante francs jëm ci trois cent vingt cinq francs litre diwlin bi doon jar mille deux cent franc léegi mille cent franc lay jal kilogramme sucre bi nga xam ne doon na jar six cent franc léegi cinq cent soixante quinze franc lay jar kilogramme pombiteer Macky wàññi na ko yàpp Macky wàññi na ko luwaas bi Macky wàññi na ko lépp loo xamante ni seeroon na ci biir réew mi kii di président Macky Sall wàññi na ko Sud Quotidien moo ñu ko xamal Vox Populi ne onze mesures pour alléger le panier de la ménagère l'observateur yéene kaay ne Macky wàññi na prix yëpp Walf Fadjri quotidien ne la recette salée du gouvernement L'As quotidien wane président Macky Sall ñu ne lépp loo xamante ni diggoon demoon ak askan wi def na ko nag ndax Macky Sall wàññi na dund gi alerte quotidien ne les onze commandements de énième coup d'essai le soleil suñu jant réew ne onze mesures pour soulager les ménages bés bi le journal ne Macky wàññi na dund gi yëpp Dakar Times ne am na loo xamante ni nag dafa jàll ci nopp Sénégal l'info le jour li mu xëy fësal ci xëdamu njëkk muy Macky Sall mu yoro bi nga fëy tàmbali bind ne leen maaleen ko digoon maa ko def dund gi day wàññeeku moom ak location bi par force doole mbaam 24 heures chrono ne spectacle bi nga xamante ne moo am ci réew mi nañ ko wax mbiru Ousmane Sonko ak mbiru Pape Alé Niang bi ñu nëbbu jant bi démb libération yéene kay ne Pape Alé Niang une arrestation rocambolesque lan moo tax ñu jàpp journaliste bi soo yore libération yéen a kaay di ko fa fekk la turbine yéen a kaay ne surfacturation yi nga xam ne am na ci réew mi nañ ci wax ñaar fukki milliards ci ay suñu ay koppar moom la ñu def lii di surfacturation bi kan noo profito ci crime bi loolu yëpp mi ngi ci biir turbine yéen a kaay enquête quotidien ne fang ci xatam mu njëkk njiitu Pastef lépp loo xam ne jafe-jafem la diggante ak Adji saar kii di enquête quotidien dikk na ci ak ñun lii quotidien ne mbir yi dina changé nag ndax ki nga xam ne moo yor wàll commerce ci biir réew mi nee na bépp jaaykat boo xam ni wàññi woo njëg bi daañu dal sa kaw critique yéen kaay dikk ak ñun tey ci confrontation bi nga xam ni mënta ñàkk ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko source aanee maître Clédor lii dafa mer ba mer lool li tax mu mer mooy Pape Alé Niang mii di client bi ñu jàpp les écoles yéen kaay ne Pape Alé Niang dañu ko jàpp te dugg na ci rapitab sambalaw bi l'évidence yéen kaay it foofu la fële tey jii ci suba mbokk yi déglu leen déglooti leen si te yóbbu na ki nga xam ni moom mooy Papa Sow Ardo loolu la suñu làmb xamal ñu tey jii ci suba mu ne si te daan na Papa Sow jël boo xam ne kenn dootu ko miim jàpp leen si te nag moom ay supporteram nee nañ digganteem ak Lac de Guiers mënta ñàkk si te moom nee na am na yeneen technique yoo xam ne am na ko waaye Lato Sagna di coach Papa Sow nee na Siteu daanul ki nga xam ne moom mooy Papa Sow loolu yëpp mbokk yi tey mi ngi ci biir suñu làmb mbokk yi ñu jeexale ak lu doy waar li nga xam ni mi ngi ci biir l'observateur yéene kaay déglu leen dégleetu leen wàllum njëgteef maanaam wàllum dëmm soxna si dañu ko ne moo jur doomam ba nokk lekk ko waa dëkk ba génnee nañu ko fa ndax dañu ko làpp ba muy gis bidéew ba cëg loolu nag ma nga amee ca luuli sinjaan déglu leen déglooti leen dama koy répété waat ndax la répétition e pédagogique dañu koo jàpp ne moom moo lekk doomam lekk jur do sa doom ba pare lekk ko moo tax démb dañu ko làpp ba muy gis bidéew bëccëg loolu sa luli sanjaan la amee aadame incha allahu rabbi